mbokk yi dal leen ak jàmm seen chaîne bi di Tivaouane 24 la chaîne religieuse mbokk yi ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné ci seen chaîne bi di Tivaouane 24 la chaîne religieuse di leen bës cloche notification yi ngir ngeen man di jot yu am solo yi bàyyi ko ci biir chaîne bi di Tivaouane 24 mbokk yi jërë ngeen jëf. daaw góor alxaj Moustapha ak seen mbokk mu baax mi tabarkalla mbokk yi gis ngeen ko comme ni ñu ko defee woon démb taxaw ak alxaj dut kenn mbay waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom la Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour def te taalibe Sidi Hadj Malick yëpp kontaan ci tey nag Abdou Aziz Mbaye la ñu taxawal ak alxaj daaw góor damay njëkk a commencé ci Abdou Aziz Abdou Aziz mbir mii nga xamante ni moom la Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour def taalibe Sidi Hadj Malick yëpp kontaan ci Abdou Aziz tey bu ma la ci doon laaj ban xalaat nga ma ciy wax ah mbir mi de tontu na boppam. am loo xam ni dellu di ci waxaat. moog julli gu mat a loo ca dolli sutur fekk la ca. waaye gis-gis bi ku ko gis ak ni mu demee ni te mu si ni demee. Mm-hmm. borom xalal bu rafet. war na koo doyloo te sant yàlla. Mm-hmm. moom la yàlla baaxee. Mm-hmm. ci ndimbalug yàlla. Eh, tabarakallah mu bëggum njaboot bëgg bennoo te loolu rek di mbiram mu di ko sakk wallahi di ko wax nekk ca di ko dox fa tabarakallah yàlla dogal jaare ko ci mile moo tax lu ne yiw lay indi mbas mi dogal na ci dogalu yàlla ya lii jaare ci sëriñ bi burdu bii ren di benn ndax àdduna bépp bokk nañu bégg ko ñu baax ñëpp bokk bokk nañu bégg ko képp koo xamante ne si seetaan nga ko te dëgg dëgg dëgg te lu baax te sa xol di dund sa sa xol di ñam tuuti yàlla nga amum res di xam ni lii dëgg dëgg dëgg mooy li neex yàlla te sas nag koo xam ni danga nga toog ci kanamu nit ñi ñu xoole la benn baat baat boobu naan baat boobu na la xoole di baatu yàlla nee na sa jëf war na dëppoog baat boobee tabarakallahu te loolu sëriñ bi ñun ñëpp la ko defal adduna bépp la ko defal daf di loo xam ne dafa jekk lu jëkk bokkul lu rafet lu rafet mooy dem ba ñaaw mm-hmm. waaye lu jëkk foo ko fekk day gën a rafet mm-hmm. fii bu ñu toogee di burdu nii tabarakallahu ahsanul xaaliq làmmiñ mooy bur waaye xol yee burdu mm-hmm. làmmiñ yee koy wax waaye xol yee ñoo koy xol ñooy burdu ndax kenn ku ci nekk e yaa ngi ngéejoo sa morom yiw yi nga xam mooy ball fii yi woowu kenn indiwu ko gannaaw dogalu yàlla daraja hmm. yonent bi kenn indiwu ko du Seydi Hadj Malick yi woowu nag kenn ku nekk ci ñun ñii ak yonent bi sa morom nga ko gën a yéene sa bopp hmm. ndax kuy xool ci ci bi daa xool may déyante hmm. ak duudu wallaahi wallaahi di déyante ak Serigne Moustapha ñuy ree te kenn xamul lu ñu reel mu doon loolu mbégte la mbégte moomu yàlla ko raw wallaahi wallaahi yàlla yàlla jaarale ko sëriñ bi muy ku baax di ku tedd di koo xamante ne si ku ko xamul xamuloo ñu ngi koy ñaanal yàlla lii ñu ko ñaanal ci ubbite burdu bi yan ko dal li ñu ko ñaanal bi ñuy tëjit yan ko dal te ñun ñëpp ñu fekk ko te tal ko yan ko yàlla jox ndam ci lii mu door lii mu door di samp maamam samp yi baayam ay baayam samp ko doonoon seen mébét yàlla teg ko ci loxoom yal na ko yegg yal na ko yàlla mi mu yeggale ko ak sago ak tal ñëpp ñu fekk ko nag ba ñu retiix yal ci am ndam tabarakallahu ak ñi nga xamante ne ñoom la yëkkati mbir mi teg ko ci seeni loxo ñoom it yàlla leen yàlla jàppale yàlla nañ ci am ndam ñun ñëpp ñu fekk ko tal ko bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke daaw góor benn question rek mooy dañoo gis bu ngeen dee way déggoo boobu ngeen di déggoo noonu lan la répétition la wala yàllaa leen ko may alhamdulilah sant yàlla bu baax alaaji di la nuyu bu baax di la ziyaar di ko ziyaar moom it ci weer wi di ziyaar ñi ñu bokkaloon lépp di tëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weer wu tedd nga xam ni mën nañoo wax ni ñun ñii tëgg yonent bi sunu weer la mm-hmm. fa tabaarakallaahu abdes wax na ko léegi togaay bu jekki bi ni togaay bi jekke noon la xol yi rafete moo tax way yi neex moo tax sax yow nga daanu ba laaj lii waaye du répétition de déedéet kenn day wax rek kenn fekk ko rek ñu ànd loolu wayu daanu waaye amul répétition ñun amuñu répétition. du ñu def du ñu def répétition amul ñun lu ñuy way ci tànt lañ koy waye loo digg ñu way ko rek ci tànt lañ ko waye wala ñun ñu ànd di way wala ñu toog ci suñu kër di way génn way ko waaye amul répétition bés lii nga laaj nag bari na ñu koy laaj. Mhm. ndax ñii dañuy répété ñun du ñu répété yàlla ak yonent bi. ak liggéeyu waajur yi ak barke Cheikh Seydi Hadji Malick waaye mosu ñoo toog ba ne tey dañu am répétition mosul am parce que li ñuy wax laaju répétition moom koy fexeel ba xam ko rek te mokkal ko miin ko te xamit fa nga koy teg te xamit na nga koy waxee fa tabaarakallaahu loolu la yàlla def ci nun loolu nag duñ ko sante kenn kenn kenn ginnaaw yàlla ak yonent yàlla Muhammad ak suñuy wayjur sante ko kan mu Cheikh Seydi Hadji Malick yal yàlla yokk leeram te ñaanal Seydi Aboubacar moom it yàlla may ko wér yàlla may ko gudd fan li ñu ko ñaanal fii inshallah amnañ ci yakar kan nako yalla def ci dara yonent bi mbokk mi ngi noonu alxaaji mbégi ak Mame dox TV wa keur Baye musa Ale baye ngi non mustafa sama xarit baye ngi noonu alxaaji Malick ak Pabal San bay ni ngeen taxaw nii alxaaji dut ken sarak yi buñ la wëree ngay tag yonent bi sama fa sa baay daan taxaw alxaaji dut ken lan la yek waaye xam nga ni way contente rek la yek way manam da nga nan lu alaaji mbay don di yek di koy waaw kay ndax Baye mbay don da fe mu tok di jàkkaarloo ak ñun ci barzakh mu ngi contente ci li mooy yoon wi mu fi bàyyi woon tool bi mu fi bàyyi ay njabootam a ngi nii taxaw di ci taxaw di ci góorgóorlu fii ci xadara sëñ Babacar Si waaw Cheikh Tidiane nekk nii Ousmane Kane génn léegi Pape Malick Thiat ah Pape nga xam ne ni moom la tuddee waajuram tafsir Alxasan Mbay toujours mu wax ko keroog bi ma Baye Mbay di wax ak man ci service bi ca hopital moom mii moo ko fekkee nga xamante ni tabaarakallaahu moo tax at mu ne foo gàmmu jote wala lu xew ci kër gi dina ñëw toog encouragé na nun ñii ñoom ñii ñëpp nag yal na yàlla taxawu leen lii daal mooy ànd bi ci suñu ndigalu kilifa xalifa mbay muy suñu mag moom itam nga xam ni yàlla dafa dogal mu yor juma nekk fa di taxawee lu mel ni nii caw looloo tax tabaarakallaa ñu fay def bur dëkk yooyu yep mu di ko diriger waaye ñun ñi ñëpp buñ fi teewee moom lañ teewal ak hmm. famille bi Aziz a nga ne le di sama mag sam papa tudde ko Aziz Mansour mu ngi woon noonu ci biir mooy suñu mag ñu tudde ko borom daara ji famille bi yëpp ngi nii daal yow sax yow yaa yow surtout Alaaji Mbay Dondo ndax yaay ndox mi nga tudde maam ndox TV <laughs> moom moo mook Alaaji Mbay seen ñaari baay bokk ndey ak baay ah te yaay ndox nag moo jur sa yaay law te moo sampal sama sa sama mbay doon dëkk jox ko yaa um mbay mu jur taawam yeeg ñëpp ñun ñëpp kon macha allah ñu ngi lay ndokkeel bu baax maam ndox TV daal ca kaw. ca kanam alxaaji mbeng alxaaji wax dëgg yàlla bu waxee ñu ñun tamit nañ ci sànni ñaari baat lu dul ñaanal ko. fépp fu Baye Mbaye toogoon lu Baye Mbaye defoon benn def na ko junni lu Baye Mbaye defoon téeméer def na ko milliard ñu koy ñaanal yàlla may ko gudd gan gudd fan gu ànd ak wér defal ko sutura àdduna ak àllaaxiram ndax Baye Mbaye nu mu uufee woon ay njabootam rek moom xaaj dut kenn ci service bi uufee noonu nu raw noonu kon nag ñu ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ci barke yonent bi barke Seydi Hadji Malick amuñu béjjënu biir sëñ Abdou nee na béjjënu biir ku ko am kenn du la mën a boot waaye ku am béjjënu ginnaaw it doo mën a boot kenn waaye ñoom amuñu béjjënu biir <laughs> <laughs> السي